fi ministère enseignement supérieur pour euh, jéem xol baccalauréat nous ni ñu koy préparé bu ci baccalauréat bi passé xol un peu lan mo xawoon am ay rëq-rëq yu ndaw ndawan pour ñu jéem mëna préparer bac bi di ñëw bu baax légui nag lool motax ñu dajé fi tay te bacu ren bi xolé da fay ci ben moment à xamné de dafa xaw particulier ndax Covid 19 bi mais ce euh, mesure ñu jël pour réussir rentrée bi yoy mom lañuy continuer gën ko améliorer jëm ko kale ci baccalauréat bi ba nga xamné buñu am yenn problème yi moo tax tey jii ngi réfléchir ak acteurs yi buñu dello ci académie bi dinañu waxtaan ak acteurs yépp à la base pour xol nan lañuy def ba nga xamné ni nii réussite bi am ci reprise bi dinañ ko mën am ci baccalauréat bi. am nañ fukki centre ak juróom-benn tëngeej xëy na taw bi ñu ngi koy xaaran di ko jéem a gàttandu et tout

Euh, taw bi kenn xamagul lu muy indaale mais ak sunu juróom-ñaari junni candidats ak juróom-ñetti téeméer ak fanweeri juróom-benn yi ñu am jàpp nañ ni mesures yu ñuy vivre dund nii buñ ko gënee euh, defar gën ko ñoŋal xalaat nañ ne baccalauréat dina mën a am ci jàmm.